Euh, tey nag ñu dalal kenn ka nga xamante ne bii ci làmb la bokk ndax làmb kenn mënu koo wax te boole woo ci ñi nga xamante ne bii ñooy amateurs yi ñu dalal président des jeunes amateurs ñu koy wax Gora Ndoye fas yéene waxtaan ak moom ci combat bii dox ci diggante tafaatin ak Boy Niang wante tamit fas yéene waxtaan ak moom en tant que président des jeunes amateurs euh, kàddu yi nga xamante ne bii moom la fas yéene euh, soññee fans club yi rawatina amateurs yi nga xamante ne bii ñoo fas yéene ñëw seetaan si combat boobu président mag ngi lay nuyu. waaw Mbaye Babacar maa ngi lay fay vraiment di nuyu amateuru làmb yëpp. di nuyu sénégalais yi vraiment di nuyu aussi tamit diaspora bi. di nuyu internautes yi ñuy seetaan yëpp vraiment di kontaan vraiment ci dalal la. ñu waxtaan en tant que amateur. ak it ñu jëm ci bis bu mag muy diggante Tapha ak Boy Niang vraiment ñuy sant yàlla comme yàlla def na tey journée bi yegsi ñu war ci jëm dimanche incha allah di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu dugg si jàmm génn si ci jàmm. allahumma euh, bala maa ñëw ci casquette président bi en tant que amateur lay waxtaan ak yow ci combat boobu di dox ci diggante Tapha ak Boy Niang noo ko gisee ci ñaari samp yi hmm. waaw mu nekk combat amateur mbay parce que combat la boo xamante ni amateur yi dañ ko yàgg xaar. ñu yàgg ko réclamer aussi tamit vraiment ñuy félicité aussi tamit di remercier suñu frère Pape Thialis ñu gis mu décroché mu nekk combat bu am solo combat bu amateur yàgg xaar ndax dañuy ñaari ndaanaan booy ñaa ku ko xam xam ko ci làmb gis parcours am fi mu jaar bëree mbapat ba yegsi fi mu yegsi tey jii ci arène bi Tafatine aussi ñu seetaan ko depuis Assane Diouf ñu seetaan ko ay mbapatam mu bëre aussi tamit ba yegsi ci arène ba yegsi fi mu yegsi nii tey kon tey combat bu jaaru boo xamante ni ñaari mbër lañ yoo xam ne kenn mësu leen gis ñu yàq làmb kenn mësu leen gis ñuy def violence kenn mësu leen gis aussi tamit ci lenn lu ñu leen di xeebee kon amateurs yi vraiment ñu ngi xaar bis bi di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñaari mbër yi ñëw si jàmm ak salaam ñu bëre ci fair play parce que aussi tamit foo ak ree la ndam li du génn Sénégal. Mhm. ñu gis ñoom ñaar ñëpp euh, seen open press yi ñu mujjee def. Mhm. ku ci nekk yaakaar naa gis nga seen état de forme. Mhm. Euh, ban jàngat nga ci mën a def ak euh, lan ngay xaar ci ñoom. le 19. dimanche incha allah gannaaw suba. waaw njàngat bi ñu def moom en tant que amateur parce que ñoom ñaari mbër yëpp yaakaar naa bi ñuy dugg si ci làmb fi la ñu fekk. booy ñaar dugg seem ci làmb fi la ñu fekk tafaatin dugg seem ci làmb fi la ñu fekk ndax seetaan nañ seen ay mbapat sax avant que ñu ñëw ci arène bi. bu am solo. parce que boo xoolee Boy Niang open press am bi ma gis bërki démb boo ko xoolee la ngay xam ni kii pare na parce que it euh, combat bi jaral na ko mu génn dem ba France entraîné ñëwaat Tapha Tine aussi tamit boo xoolee open de presse bi mu def Iba nga xam ni kii pare na et puis li ma jaaxal ci combat mooy Bawol Bawol yëpp dañoo booloo doon benn topp ci ginnaawam te Bawol ku ko képp ku wax làmb wax Bawol ñu gis aussi tamit Boy Niang aussi bi muy def point de presse Eumeu Sène ñëw ne ci yëpp ne ci ginnaawam gis nañ tey Ama Balde bi mu yegsee ci aéroport bi déclaration bi mu def di wane ni Pikinois yëpp ñu ngi ci ginnaawam. loolu aussi tamit nekk loo xamante ni ñun amateurs yi loolu la ñuy xaar. dañu bëgg Bawol yëpp booloo topp ci ginnaaw Tapha Tine yëpp booloo topp ci ginnaaw Ama Balde mais lépp rek ñu def ko ci fair play def ko ci xam nga li nga xamante ni mooy sportivité parce que ñaari mbëri ay sénégalais lañ te kenn mosu leen xam ci yàq làmb mais ku leen xool xam ni nar nañoo bëre nar nañoo xeex mbay parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne ku ci nekk da nga mën bis boo xoolee keroog bi muy mooy bombardier fii ci Demba Diop Luc Nicolas tëgg ko gis nga na mu demee keroog ba muy bëreeg Elton gis nga na mu demee Boy Niang gis nga keroog ba muy bëreeg Sa Thiès Pape tëgg ko gis nga na mu demee gis nga keroog combat bu mujj mook Lac de Guiers ni mu def stade bi mu ñu nekk ñaari mbër yoo xam ne ay mbëru amateur lañu suñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex suñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex yéen amateurs yi lan ngeen di xaar ci ñaari mbër yi incha allah dimanche waaw li ñuy xaar si ñoom ñaari mbër yi mbay mooy ñu ñëw rek ci fair play ñëw ci jàmm seen supporters yi aussi tamit ñu ñaax leen parce que tamit dama gis supporters nañ ci ñëw ci kanam. waaw ci côté ci côté ci côté bëre bi. ñoom ñaar ngeen bëgg ñu bëreel leen ñoom. waaw non bëre bi moom ku ku xam Boy Niang xam ni mbër la moo xamante ni day bëre ci ay flanc. Mhm. day bëre aussi tamit ci ci ci digg bi. Mhm. mbër la moo xamante ni day xeex day bëre. xeex bi xëj na mën nañu wax ni dooragul mbër mu daanu mais gis nañ ne dalay cokkaasi xeex ba nga jóg mu jaaxle mu bëre yow ci wet. ñu bëri ne Tafa moom moom moom bi ci. waaw moom moom xeex bi parce que Tafa dafa am xeex bu muy xeex Tafa day kor doog a xeex. mais waa day jàpp ba pare doog a xeex. wala mu kor la dóorul ay percule. loolu lay bëree. Boy Niang aussi tamit ñu gis ne xeexkat la mais ci biir xeex bi daf lay dóor pour toucher la bu gisee bunt day dem. ñaari mbër la ñoo xam ne bokkuñu ni ñuy bëree. dafaa day taf di plaqué. Boy Niang aussi tamit day taf di di roof ca xabal di la dàq. ñaari mbër la ñoom boo ñaa gis nañ day bëtt ci ay wet. gis nañ aussi mbër la moo xamante ni saa boo dëggalee xeex bi. boo xefee mu daan la parce que dalay woo ci xeex ba nga dëggal sa bopp mu war xeex bi dem bëri ci dafaa it dañu gis ne saa bu la téye bu ma dëgër da dàq plaqué parce que dafa am relance bu la dàqee da lay da lay da lay plaqué dox ak yow nga daanu gis nañ mu def ko Cech gis nañ mu def ko Abdou Diouf te ñooñu ñoo ëpp Boy Niang tamit gis nañ tamit ne ci biir xeex bi aussi comme ni ma la ko waxee da lay juumloo pour fexe nu mu ñaari mbër lañ yoo xam ne ku ci nekk ak système bi ngay bëree bokkuñu nag ay bëre. ku ci nekk am nga sa stratégie am booy bëree. Mm-hmm. parce que Boy Niang si tamit day fàq di bëre. Mm-hmm. day bëre tànk di bëre ay loxo. Mm-hmm. Tapha gis nañ mu daan bëre bu njëkk boo xoolee bi muy daan taala gaynde daf ko kal roof ko xabal jéggi ko ñu gis ni bi muy di bëre ki nga xam ne mooy El Hadj Diouf daf ko rof galgal xàttar bi ko maanaam mu ngi façon bëre boo xam ne mën nañu wax ni poids bi léegi sax moo ko ko teree def mais Tapha gisoon nañ ci moom ay facette bëri yu bëri yoo xam ne bi muy démarré noonu la doon bëree mais dernier moment yi ñu gis combat mi dañuy gis ne poids bi muy indi peut-être moo xamante ni li mu war a bëre ko bëre waaw Boy Niang aussi nañ ci moom benn poids boo xam ni vraiment gis nañ bu poids boo xamante ni comme combat ak Sa Thiès muy dugg di génne di dugg di génne te loolu aussi tamit mën na ko may mu daan façon poids lourd bu ne parce que mbër bu fees bu weesoo 100 kilos rek bu moomee yaramam rek mhm. à tout moment mën na def surprise ci combat mhm. Mhm. mbër su weesoo 100 kilos su moomee yaramam à tout moment mën naa def surprise ci combat euh, euh, mais est-ce que mën nañu xaar dóor mu daanu ci combat bi maanaam kaaw waaw kaaw moom à tout moment mën na ñëw ci biir làmb parce que kaaw du lu ñuy indaale mais point la boo xam ne heure bu ñu la ci dóoree mën nga dem kaaw ci biir xeex bi bu ñu xeexee xeex boo xam ne xeex xeexu mbedd la dóoral ma dóor dóoral ma dóor à tout moment bu sa morom jëlee coup foo xam ne waru ko fa jël parce que am na ci ay points yoo xam ne heure bu ñu la ci laalee da ngay dem kaaw ay points sensible yoo xam ne saa bu ñu la ci dóoree même bu la ci xale dóoree sax mm-hmm. boo demul kaaw dina am lu mu wàññi ci yow mm-hmm. waaw ñu leen koy moytuloo nag ndax ñun xaaruñu si kaaw mm-hmm. combat bi amateur li ñuy xaar mbay mooy ñu jaxasoo bëre waaw bëre ba stade bi jóg taxaw parce ñaari mbër yëpp ku ci nekk ci ñoom xam nañ ci yow mën bëre xam nañ ci yow mën a xeex xam nañ ci yow ñemee xam nañ ci yow aussi ginnaaw parce que ñaari mbër yu am ginnaaw lañ booy ñaa boo ko gisee estafam booy xool ku ci nekk rek ub nga làmb boo xoolee tafaatin tey ni ma la ko waxee bool bool yi ni ñu booloo nekk ci ginnaawam boo xoolee tey champion bu mel ni Zallo nga gis ko tey ci ginnaaw tafaatin kon da ngay xam ni bawol booloo nañu te am na fu ñu teg combat bi Boy Niang boo xoolee Mansour Diop jóge na ba Italie ñëw nga xool pikinois yi ni ñu def ñoom tamit nga xam ni ñoom it booloon nañu pour am victoire waaw ñu leen woo daal ci fair play mais xam naa ni bëre moom dina fa am xeex aussi tamit dina fa am yéen amateurs yi li ngeen gën a soxla mooy bëre bëre si dañu bëgg combat bu neex ñun te loolu dañ ko gëj a gis ñu jàppante jaxasoo waaw bëre xeex parce loolu dafa bokk ci làmb parce ñaari mbër yoo xamante ku nekk joxe. ñu xeex ñu bëre. parce que amateur loolu moo koy bégloo. mais ñëw xew xaas def quatre appuis ñu ne làmba ji jeex na. wala ñu ne nii ñu dóor benn mbër mu kaaw ñu ne làmba ji jeex na. loolu ñun bëgg bëggatuñ ko ci làmb. amateur bëggul loolu amateur li mu bëgg mooy bëri xeex dem ardu ñëwaat ñu xeex. Mhm. bëre. Mhm. ba ñu gis bëre. waaw parce que tey boo boo stade bi yëpp jóg taxaw stade bi yëpp jóg taxaw parce que mhm. muy tafaatin muy booy ñaa ku ci nekk am ngay facetu bëre. ku ci nekk da teg sa morom teggi nga teg leneen. boo xoolee tey tafaatin diggante mag Yékini clé yi fa yëpp da ngay xam ni kii ndaanaan lu bëre xoolee tey Boy Niang digganteem ak Sa Thiès clé yi fa génn yëpp da ngay xam ni la loolu lañ soxla xeex bëre ba stade bi yëpp jóg taxaw kii kii daan doog a daan kii daan soo a daan wax naa ko sànq ko wax làmb wax mm-hmm. amateur mm-hmm. yaw la yàlla teg ci mm-hmm. euh, bopp euh, jeune amateur yi yow yaa jiite jeune amateur yi yéen naka ngeen di waaje bis bi ak euh, lan ngeen lan ngeen naka ngeen gisee bis bi waaw bis bi moom ni ñu koy waajee yaakaar naa ni ñu ngi ci parce que boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan ci groupe whatsapp yi. ñu ngi ciy def ay direct ci live yi. di ci waxtaan ak leen féliciter aussi tamit diaspora bi. ndax ay amateur lañ. ndax démb rek def nañ live bu am doole waxtaan ak ku ci mel ni Youssou Ndoye l'international ma koy ci waxtaan ak amateurs yi. di ci waxtaan ak ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci diaspora bi. ñoom ki nga xam ne ñooy Toldo ñoom Dev Live. gars yëpp ñu ngi ciy liggéey ñoom Bamba le Capo animateurs yoo xam ñu ngi ci diaspora bi mais fu ñu toll aussi tamit ñu ngi bàyyi xel Sénégal. Uh-huh. parce que xam nañ ne làmb Sénégal kenn mënut wax làmb te doo Sénégal. Uh-huh. mooy suñu sport national. Uh-huh. vraiment ñu leen di nuyu di wax amateurs yëpp nag ni ñu koy waxtaanee mooy di waaj bis bi rek. ñiy ñawlu ñawlu nañu ñuy préparé ñu ngi préparé. di xaar gis gis gis nañ président buy ñëw parfois ci bisu mag yi. Euh, trois morceaux lay laal. te koppati. Uh-huh. laal ay marakis ci suuf. Uh-huh. Uh-huh. lan leen mën a xaar ci président incha allah. waaw loolu moom loolu amateur ku ko xam xam se xam ko ak sañse xam ko ak mën bis. foofu aussi tamit vraiment message bi ñuy lancé suñu rakk yi nga xamante ne ñooy supporteru mbër yi. vraiment ñaari camps yi surtout booy ñaa ak tafatin muy parce que gis nañ li xew barki démb ah, gis nañ li xew barki démb. waaw euh, neexul kenn kuy yëngu ci làmb muy lu ñaaw muy parce que làmb soxlawul image boobu. noonu non euh, parce que boo xoolee tey. boo xoolee ci ginnaaw. da nga daan gis Demba Diop bu ñu daan bëree stade bi day fees dell. Mhm. nga gis amitié keroog bi Sa Thiès bëree euh, Boy Niang gis nga ni stade bi mel. Mhm. loolu image yooyu la làmb soxla. Mhm. mais loolu tey jii bu fekkee dañ ko daan def ci yeneen stade yi ñu dem ba am suñu arène nationale. nga xam ne làmb rek moo fay am. football du fa am basket du fa am handball du fa am làmb kese moo fay am. ba pare milliards foofu aussi tamit vraiment état bi ñu koy parce que gis nañ violence yi nga xam ne mu ngi commencé di am si arène nationale bi. Mm-hmm. muy damm chaise muy agression yi gis si biti. loolu defarul image u làmb. Mm-hmm. ndax làmb li mu soxla mooy ndaw yi ñëw ànd ak yar. Mm-hmm. foofu liñ message bi ñuy lancé mooy que nii tey jii nii ak appel bi ñuy lancé mooy que ni supporters yi muy camp wu Boy muy camp wu Tapha waa Boy ñaar nañ xam ne ñoom ñoo dëkk Pikine ñoom ñooy dalal waa Tapha Tine. ñu wane respect wane yar wane teggin parce que tey boo xoolee tey diggante bi fa Boy Niang di bëre ak Lac de Guiers ak tey boo xoolee tey mën nga wax ni ñaari camp yëpp. ay camps yoo xamante ne la xamuñu leen ci yàq làmb mhm. parce que keroog bi booy ñaar dalalee la de guerre gis nañ la xew si stade bi mhm. donte bëri nañ ko ci fair play mu jeex ku nekk ñibbi mhm. leen di waxaat nañ ko defaat ci diggante ak Tapha Tine diggante ak Tapha si jàmm ñu bëree te xam ni ndam li comme ni ma la ko waxee génnul Sénégal ñaari doomu Sénégal lañ côté Tapha Tine aussi li ñu leen di wax mooy ay si jàmm ñu ànd ak discipline ànd ak yar ñëw supporter seen mbër parce que li may wax rek làmb ñoom rek ñoo ci gagné ñoom mbëri mhm. supporters yi duñ ci def lu dul ñëw yuuxu wax def lu ne mais mhm. mbëri ñooy fay ak seen ay millions ñooy demalante ñooy dikkalante mhm. kon nañu woote jàmm woote fair play te xam ni comme ni ma ko waxee ndam li génnul Sénégal Tapha Tine mooy Boy Niang war nañ mën a bëri ba pare ku nekk dem seeti sa morom pourquoi pas parce que tamit làmb jeex benn benn 45 minutes la bu jeexee jeex na comme ni ko Boy Niang que ëllëg maanaam ñoom référence la ñu ci ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ñëw. Mhm. vraiment. Mhm. Mhm. muy message bu foor ba nga xamante ne bii président des jeunes amateurs moom moom moo ko joxe mais yaakaar naa ci côté billets yi tamit war ngeen cee gis seen bopp parce que. Leewtoo production yombal nañu billets yi ba amateurs yi ku ci nekk mën a mën a mën a jënd sa billet. waaw Leewtoo production vraiment ñu ngi leen di sant leen gërëm. parce que bi prix bi yi génnee aussi tamit vraiment jokkoon naa ci ak Pape Thialis uh-huh. vraiment ñu changé ci ay idée uh-huh. mu nekk loo xamante ne aussi tamit amateurs yi merewuñ ko benn yoon uh-huh. parce que gis nañ ne lamb ji yàgg na vraiment metti na aussi tamit sponsor booy xool bu njëkk lamb da daan bëri ay sponsor ba billet yi amateurs yi dañu ko doon sentir seen bopp mais boo xoolee année yi mujj yi sponsor yi dañu taw a daw lamb boo xoolee promoteurs yu ci bari ñoom ñooy def seen ay dugg génn. Uh-huh. ba créer am seen ay sponsor uh-huh. kon tey lamb ji aussi ku ne xam na budget bi fu mu toll. Uh-huh. métti ci promoteur bi vraiment ñu koy masaw. di ko ñaanal vraiment journée bi mu am ci lu kawe lu mu musta am ci benn journée. parce que gis nañ coono bi mu daj. ko neexoon mu jël alalam dem investir ko ci leneen. kon ñun bu nekkee amateur mu décrocher ñu combat Boy Niang Tapha Tine. ñun vraiment du ñu mën lu di ko sant di ko gërëm. parce que am nañu ko njëkk a dox te yaakaar naa sottewul ci ñoom. kon lii nii vraiment sant yàlla la. di ko ñaanal aussi tamit réussite totale mais mm. prix billet yi moom vraiment abordable na abordable na loge bi li uh-huh. uh-huh. uh-huh. loolu aussi tamit gis nañ ne daal toojul kenn. ñu koy ñaanal rek amateur yi di woo ñoom ñëpp nañ ñëw en jàppale suñu frère. parce que gis nañ ne bu jógee ci lii dafa war a tegaat leneen. parce que amateur la comme ñun. te vraiment lépp lu muy def mu ngi woo di ñu laaj suñu ay idée di waxtaan ak ñun te loolu ñun loolu rek la soxla. kon daal euh, mën nañu wax ne amateurs yi fi mu nii gis nañ seen bopp ci li nga xamante ne bi moom mooy euh, ticket yi ndax abordable na pour ñoom euh, kàddu gu mujj gi lan lay doon ak ci côté Tapha Tine ak Boy ñaar ku ci nekk xam nañ ne mm-hmm. ambianceur nga mm-hmm. euh, yéen amateurs yi ban ambiance ngeen di xaar après jour lamb ja waaw ambiance bi ñuy xaar moom vraiment mooy tuus mu neex ndax Boy Niang gis nañ ko tuus bu bees mu créé Tapha Tine gis nañ tuus bu bees mu créé mhm. loolu la xaar ñoom ku ci nekk créé na chorégraphie bu bees parce que dañu xam bis bi ñu jëm xam ne bis bu mag la mhm. te bis bu mag nag li wax nag bu mag ci lañ koy rey kon ñoom ñaar ñëpp ku leen xool xam ne préparé nañu bis bi mhm. ñoo ngi koy waajal ak seen ay Mbaye dafa am loo xamante ni tey il faut muy dafa nekk message boo xam il fallait que ñu jàllale ko. Mhm. parce que boo xoolee tey Pikine dafa am autorité yoo xam ne dañu leen fa teg ñu gis le président Macky Sall dégager plus de 32 milliards ñu def ko ci arène nationale. Mhm. ñoom ñu nekk fa di ay doomu Pikine. ñu di leen woo ci li nga xamante ni insécurité bi nga xam ne gis nañ ko biir Pikine di leen ci tàllal loxo pour ñu jàppale tamit ñi nga xamante ni tey ay Pikinois lañ jàppale jeunesse bi mhm. ki ci njëkk mooy ki nga xamante ni mooy Doro Gueye mhm. di nekk koo xamante ni gis nañ vraiment mu nekk wotu président de la République ko jàppale mhm. jàppale ndaw Pikine yi lépp lu fa xew rek di loxo mu ngi ci biir mu ñu yëg ko muy ñu ñàkk ko yëg Doro di koo xamante ni vraiment nit la boo xamante nit bu spécial la. Mhm. ñu koy woo ci violence bi ñu gis ci arène bi. Mhm. dugal ci loxoom. donte dañuy créer benn comité boo xamante ni tey jii xam nga gardiennage lay doon wala sécurité ñu renforcer ko ci nga xamante ne mooy arène bi parce que ay doomu Pikine lañ. Mhm. te arène bi ñuy dégg violence biir arène bi mu nekk Pikine ñoom ñu dëkk Pikine. tey war a jàppale président loolu ñu duñ ko rafetlu. li gën a doy waar sax mooy après lamb ji. après lamb ji gis nga violence bi ko gisee yow boo di un responsable moom tamit nekk ki nga xamante ni ku nekk ci wetu président la di ko jàppale. nekk nit koo xamante moom it gis nañ bu mbëri Pikine ni soxlaa day taxaw. bu jeunesse bi taxulaa day taxaw. suñu frère Jules Baldé Junior gis nga bi fi nekkee ci ay jafe-jafe. bi ñu wootee moom lañ njëkk a gis. muy koo xamante ni saa bu Pikine soxlaa day taxaw ci côté jeunesse bi. ñu koy woo moom aussi tamit mu jàppale ñi nga xamante ni ñooy. nitu lamb yi. jàppale aussi tamit sportif yi jàppale jeunesse bi. te Boy Niang warul génnee Pikine dem ci arène nationale ñu fay déglu violence wala ñu fay dégg leneen. en ngi koy lancé message muy Thierno Dompa vraiment di ko wax ni ko na dugal loxoom ci sport bi na dugal loxoom ci jeunesse pikinois bi loolu yëpp aussi tamit pour maanaam jàppale président ndax gis nañ li ñuy jàppale président ni ñu koy taxaw ci côté yi nekk di lancé message aussi tamit vraiment amateurs yi ñu ñëw ci bis bi ci jàmm mu jeex ñu ñibbi si jàmm supporters yi ñu ngi leen woo ci discipline ñun les a yar ak la woo décoré la di ñaanal Thialis sama waa kër di sant suma yaay di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan mhm. di ñaanal sama papa aussi fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm te ko àjjana di sant pikinois yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm mhm. di sant aussi tamit ñi ñekkoon keroog ci bayum armée yi mhm. vraiment foofu il fallait que ma lancé ci appel muy pikinois gis nañ vraiment taxaw bi ñu taxaw keroog dimanche ci armée lu yi muy lu rafet ndax vraiment gis nañ liggéey bi 6 heures du matin lañ ko song avant 2 heures jeex na. Ah. ñu leen ñaanal képp ku fa ñëwoon yàlla na yàlla defal jàmm. Ah. ñi ñëwul aussi tamit yàlla nañu yàlla boole tuyaaru bi ñun ñi fa nekkoon ñëpp. Ah. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Merci. merci beaucoup président kooku moo nekkoon euh, Gora Ndoye président des jeunes amateurs yaakaar naa message yi mu joxe am na solo parce que dama koy faral di wax amateur kese mooy perte ci làmp mm. amateur mooy ki nga xamante ne bii mooy tëj place am wala bàyyi liggéeyam 14 heures dem sangu ba set mm. sol yéreem rafet génne xaalisam dagg bi billet toog ci stade bi kooku bu làmb ja neexul moom moo perte bu làmb ja yàqoo moom moo perte kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne bii ñooy amateurs yi nga xamante ne bii buñ boole woon ñaari ginaar ci arène bi sax ñu ñëw seetaan si waxuma fans club waxuma supporter amateur laa wax mooy ki nga xamante ne bii mooy perte ci làmb bu per perdant amee ci làmb mooy première perdant ci làmb parce que mooy bàyyi léppam ñëw toog ci làmb kon ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne bii ñooy amateurs yi bu baax a baax a baax merci beaucoup président di nuyu bu baax a baax nag euh, ki nga xamante ne bii mooy Ngañ Jaañ saltige Bawol Ngañ maa ngi lay ziar nee naa la Bawol yaa ko téye ci sa loxo képp ku bëgg sa ajo gaaw faju na la ñëw seet si ndax yaa mën ci bawal merci beaucoup tamit sama doom ndey super étoile fële ca États-Unis d'Amérique maa ngi koy jaar bu baax a baax la grand champion arraine bi namm na la gars yi namm nan la war ngaa ñëwaat tooyal sa xaftaan tooyal sa ngemb namm nañu kaawa yi ak li nga xamante ne bii mooy touche bu neex bi sama gars yi rendez-vous incha allah dimanche le 19 décembre arène nationale ak Leewtoo production